Euh, bay itamit ña nga xam ñoo yeeyoo ñàkk yooyu la yéen a cabinet njiit réew Macky Sall ak ñam ca feegul ak ay ministre am ak ay directeur de société ñoom ñëpp tàmbale nañoo ñàkku askan wi nag di yuuxu wàllu ci ñàkk yooyu le ndax daañ ci jotam déet Walf Quotidien moom la xëye tey ci xëtam bu njëkk le mandat le mandat le mandat xaj ak gi am ci ñàkk yi ségrégation moo am ci vaccination googule yenn cabinet vaccin yi yegg si nañu waaye nag am na ci ñoo xamante ne eh, ñoom ñoo gën a ak ñoo gën a yeyoo ci ñàkk yooyee te ba léegi eh, kenn eh, seenagu leen ca journal bu bees la. Euh, waaw le mandat journal bu bees la bu ganee si yéen a kaay tey. Euh, réew mi yéen a kaay. réew mi yéen a kaay Seydina Omar Ba benn at euh, coronavirus def na ko ci mim réew bokk na ci feebar googee jot naa faat lu toll ci juróom-ñetti téeméeri doomi aadama yu toftal juróom fukk Sénégal nag dund na ci lu méttee métti tiitaange ak jaaxle ci bile feebar di Covid 19. l'observateur l'observateur am ci taxaw seetlu ñaari fan ci weeru mars 2019 la dugg si ci réew mi moom Covid 19 matal na benn at. 1 at mi mu fi def ni ko naka la ko sénégalais yi dundee professeur Seydi wax na ci lu bëree bëri eh, feebar googee ku mu njëkk a faat ci askanu Sénégal di Pape Diouf eh, jiite woon fii olympique bu Marseille mu ngi ci l'observateur Vox Populi eh, Vox Populi Seydina Omar Ba wolu nañ ko tey ji ëllëg incha allah ci àllarba ji bu 9h jotee Ousmane Sonko njiital Pastef ndax dina dem wuy ji juge bu huitième cabinet am déet noonee la ko yéene kabidi Vox Populi fësale lii quotidien lii quotidien ne convocation gàngoog ëllëg lañ ko nas bu 9h jotee Ousmane Sonko euh, fas yéene jàkkaarloog juge bi laaj ak tontu fas yéene dox digganteem ak euh, juge googule jëm ci lañ koy tuumal ci la xewoon ca euh, salon Sweet Beauté. les échos les ne lu aju ci mbirum Sweet Beauté googule nag ka moom salon ba Dindé Khady Ndiaye dañ ko wóolu tey ji dañ ko déglu ci lu yaato yaatu ca la sabab mbir ya bokk na ci Sidi Ahmed Mbaye. Euh, mañ ca tudd moom itamit euh, daañ ko déglu dina feggoog ay avocat euh, niki tey jii Ousmane Sonko ëllëg incha allah la fas yéene jàkkaarloog juge d'instruction Mamadou Seck matuwaay yi nga xamante ne jël nañ ko ngir xool ndax Ousmane Sonko dina wuy jëm déet bu ko deful ñu dem jëli ji ko bu ñu sukkandikoo ci les échos. la tribune la tribune Seydina Amar Ba ñu ngi nar a dem ci àllarba joo xamante ne nar naa gudd lool ci Ousmane Sonko ndax ëllëg ak jàmm la fas yéene. wuy ji ci kanamu yoon njiital Pastef ndax dina demam déet laaj la gu samp ci euh, turbine le quotidien Ousmane Sonko jàkkaarloog juge euh, Mamadou Seck yéen cabinet avocat ya euh, jot nañu itamit jot convocation bay xamal usman Sonko ne ngir mu wuy ji ëllëg kii di Clédor Sène ak Assane Diouf ñanga ndungu siin Dambodj ak ñam ca fegol yi tamit jot nañ leen a bàyyi démb ñu ñibbi seen kër am nañu afia libération libération ne convocation gi wundu Ousmane Sonko ngir mu dem wuy ji eh, ca kanamu juge bi juge boobe di huitième cabinet moom ca section de recherche la jaar eh, jébbal bataaxal ba ay avocat Ousmane eh, Sonko naka la ñu jàngatee mbir ya libération xëy na ci xibaar mu ngi ñuy xibaar yi tamit xaaj ak seen gi am ci ñàkk yi vaccin yi dañoo féete boor critique critique ña ngay wër ba ba léegi ana fan la féete Adji Sarr Euh, mi nga xam ne moo tuumal Ousmane Sonko yéen ak cabinet kilifa diine bëgg nañu diisoog moom ngir xool euh, dossier googu fu mu toll waaye nag tënk gët ci jamono ji moo jafe ci Adji Sarr avocat am ci source a maître El lay wuyoo ne xel xalaatul ñu giseek Adji Sarr Adji Sarr lenn dong moo ko soxal mooy fexe daal ba euh, juge juge bi mun a leeral askan leeralal askan wi li xew ci diggante mag Ousmane Sonko ak kayitu kalaame gamu jébal yoon moo soxal Adji Sarr ba tax na maître la Hadji ne Eh, kenn du ko gis eh, fekk àtte bi jotul. Sud Quotidien. Eh, Sud Quotidien lu mu mun a jur ci réew meek wàllu pouvoir bi stratégie matuwaayu nguur gi jël di teg loxo ay jegeñaale Ousmane Sonko ci Pastef Momar Diong di taskatu xibaar analyste politique joxe na ci xalaatam. 24 nak ana na naka la ñu war a taxawee réew mi sàmm kaaraange réew mi ak seen i askan ah, li ci police war a def ndax fan yi réew mi yëngu na lool ci dossier Ousmane Sonko. Le Soleil Le Soleil Ba xëye alam gi njiit réew Macky Macky euh, jot naa fesal juróom-ñeenti euh, forêt yoo xamante ne jot nañ koo jëmmal euh, ca Kolda Matam ak Tambacounda ba Sédhiou la ca xew yëpp jëru ngi ñu denk wàllub environnement di Abdou Karim Sall wax na ci ci biir yéene kabi di Le Soleil jiite ëllëg candidat bari lool te wute métro Augustin Senghor la woolu ëllëg ca capitale bu Mauritanie di Nouakchott Euh, mu ngi ci yéen a kaabi di stade ñaari kàngam ci làmb ji euh, daan itamit ñaari kàngam ci làmb ji Baboy ñu ngi fàttali ko keroog ba muy daan Bombardier Balla Gaye 2 itamit euh, keroog ba muy déggaloo muñal Yaxaya Basul moom la suñu lamb xëye tey yem ak fu ñu jeexale xetu yéen a kaay tënk la woon incha allah